ci jamono bi nga xam ne tànn na ko ba ñu dem ba campagne électorale ba daal di door moom njiitu réew mi Macky Sall kon bu ñu sukkandikoo ci naataango yi nekk ci Sénégal daal na rek kon décider battre campagne maanaam ànd kii di Amadou Ba ci terrain bi nekk ci wetam daal di battre campagne ak moom. mu mel ni rek loolee kon dafay gën di firnde ne moom njiitu Macky Sall moo waxoon démb rek lay wéy di wax tey kii di Amadou Ba moo di candidat am ñeel élection présidentielle yi ñu dëgmal gannaaw rek kon boo xamante ni am na benn malentendu boo xam ne amoon na. ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar mu bay ci weew euh, bay ci euh, waaram def ci kim kattanam moom président sortant Macky Sall na kon mel ni rek jël na engagement daal di rek def effort ngir nag battre campagne euh, battre campagne dimbale ki nga xam ne moo di Amadou Ba di candidat bu Alliance pour la République waaye tamit bu coalition Benno Bokk Yaakaar dialogue bi nga xam ne kon am na ci diggante njiitu réew mi Macky Sall di leader bu APR ak ki nga xam ne moo di Amadou Ba loole rek kon tax na ba rek ñu daal di wàccee tension yi nga xam ne amoon na waaye tamit renforcer seen unité ngir ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal moom njiitu réew Macky Sall eh, yi nga xam ne ab chef de l'état la nag nekk président sortant dafa décider kon participer activement ci campagne électorale bi loole nag gannaaw rek boo xam ne décider na daal di dem ci terrain bi accompagner nag ànd ci ak ay responsable politique yu coalition Benno Bokk Yaakaar ngir nag battre campagne dimbale kii di kandidaam di Amadou Ba mu nekk démarché boo xam ne rek jubluwaay ba du dara rek du dul mobiliser soutien waaye tamit maximiser change ki nga xam ne moo di Amadou Ba ngir nag mu am ndam ci ngoonu 24 février mars 2024. Euh, suite bi di Dakar Actu nga xam ne nag kon naataange nekk Sénégal danañu fay jaar jëlee fa xibaar bi moom la xam le rek moo di ay directive yu ferme ñoom nag la ñu daal di jël adressé ko ñi nga xam ne ñoo di responsable politique yi ngir nag ñu def seenu kéem kattan ci terrain bi battre campagne. mu nekk ay instruction yoo xam ne rek dafay souligner importance boo xam ne ak engagement boo xam ne ñoom ñëpp war nañu ko am ngir amal campagne bu efficace lu ci mënta xew rek euh, moom jàppale na bu nu sukkandikoo ci naataange moom njiitu na Macky daal daal dinay ordonné mobilisation waaye tamit ñu def seen kéem kattan seen i ressources yu nécessaires yëpp ngir assurer benn campagne bu réussir en faveur de kii di Amadou baax mi nga xam ne rek moom nit ki fa mu nekkoon ca Tivaouane sax ci la daal di écourter campagne am ne nag dafa am urgence boo xam ne war naa ñëw rek la ko fii ci ndakaaru xel yëpp jàpp ne eh, moom ak njiitu réew mi Macky Sall ñoo waroon a gisee rek ngir amal ak waxtaan naataango yi nekk ci Sénégal nag di ñu xam ne ne njiitu réew mi Macky Sall daal di nay décider rek dem ànd ak Amadou Ba battre campagne ngir moom ngir nag rek yokk chance am ngir élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal des xaarandi fan la waanante mu jéggatam jërë ngeen jëf mbokk yi li ma doon xibaar ci bile vidéo yeneen i xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu caalandee